Thiaw mooy waxuma laayeen rek mais képp koo xamante ne bii nitu diine nga sëñ Ablaye jàngal na la li nga xamante ne moom la moom la diine doxe ndax bàyyi laay ba mu wootee tudd ko bi mu ñëwee mat na ko sëg mata sëg googu nag mooy li mu taxawal ci temps boobu mu ay daayira jël xale yu góor yi jël xale yu jigéen yi si ndigal Seydina Mandione dama ne loolu moom la ànd ak nun ñii ci daayira ba man mi wax ak yéen nekkoon naa dirigeant daayira Layène ci 1970 72 kon fu ne ànd na fa ak nun ci li nga xamante ne bii mooy oote maamam bi lu ko jotal te sëñ Ablaye ba muy wax ne maamam nee na ko na jigéen tudd yàlla na góor tudd yàlla lakk leen xale yi. may leen sëyi dama ne booba yombul senegal ku te booba temps ku ko wax ñu weddi la waaye tey njàngalem Seydina Limaamu xam ne moom si boppam moo nekk soo interlocuteur dama ne tey jii àdduna bi fekk se na en tout cas nun loolu la mën a témoigner si moom nu ngi ñaan yàlla ak barke ba maamam Seydina na Limaamu alayhi salaatu wa salaam te moo nekkoon démb nag ñëwaat tey ruula Isa di waajuram dama ne nu gëm ko ci loolu te nu ñaan yàlla nu sax si loolu ak suñu njaboot bu ko ne nu koy fekk. papa naka mel na ni moom amul loolu kay Sénégal boo ko laaj mu témoigné ko Sénégal boo laaj si ab laay si diine mu témoigné ko ndax la preuve mooy du tijaan du murit du xaadir du kenn. kër goo dem kër goo dem rek aw turam a am na ku mu fa na ku tur kon loolu xalaat naa ne eh, njàngale la moo xamante ne bii mboolem koo xamante yaa ngi roy diine war nga war nga roy si moom te xalaat na njàngale moomu apaisé na tension yu bari entre les religieux ba loolu lépp tey mu effacé wu recommandation yi oh, daal mooy sanga bi ba mu mu ba mu ootoo maam alsan laay daf ne wax jéena ndax wax nax mbool wax nax nit ñi depuis ba ko Seydina Issa nekk kaay def gàmm muy waxaax nun ba kara maam alsan génne la taxaw carrément ne wax jéena ndax loo mission bi jéena noppi naa kon nag diggante ba ñu ko joxee mission bi ak bi mu remplacé magam dama ne diggante boobu lu fi waay war a dégg nga fekk nga jàkkaarloo moom dégg nga ko lu si waay war a dégg si audio dégg nga ko lu si waay war a dégg si audiovisuel dégg nga ko loolu mooy recommandé